صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماه مع الحس والسفر نعم xanaa neex rek màggal gi neex na tegu na ci aw yoon tegu na ci ak taalibe bi di ñaan sëñ bi mu yàgg lool ci suñu kanam ci ànd ak biir yéen ñi nga xam yéen a yor mbirum rajo bi tax waaye rafet na yéen ñi ak ñi ngeen ko seqal ñëpp yàlla na ngeen fi yàgg ci ànd ak biir li ngeen bëgg ci yoonu sëñ Tuubaa wi yàlla na sunu borom may leen ko ba rajo bi avancé dem ca kanam bu sow yàlla sant nañ bu baax gërëm nañu bu baax taalibe yi ak ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na taxawaay bu yàgg barke Sëñ Tuubaa neex lool ba jéggi dayo neex it daa jéggi dayo ndax bu ñu xoolee ca gannaaw boobu ay cere la woon tey jii foo dem bernde bi day macha doo jënd dara lépp jaar na ci yoon ci tegu ci ak taalibe bi nag rek ca la tegu. bis bi tey maa nga boobu corniche damaa dox ak sama tànk. ñëw pour julli si ci jumaa ji rek rek bëgg sëñ Bàmba moom rek ne ci sama xol dañ ñaan yàlla yàlla may ma fan may ko bépp jullit ba mën da ñëw fii na sama xol ndik sëñ Bàmba sant yàlla bu baax rek te xam ne Sëriñ Tuubaa moom gën nañ koo santaat gën koo gërëmaat ndax bisu tey bii yokkutale ci taalibe yi waaye yokkutale ci mboolem jullit yi itam nag waaw wax dëgg yàlla sëriñ Tuubaa yàlla da ko fay ba fay ko loo xamante ni macha allah mën nañu wax ne kawe na jox kon bu ñu ñëwee fi julle fi juma jombut ñi te itam jomb ko ñu ngi koy ñaan yàlla lépp loo xam ni mébatoon na ko ci diine ji suñu borom defa ko ci tawfiq tay siir wax dëgg yàlla tey daal ñëpp kontaan bu baax macha allah. kontaan rek xol yëpp sedd ma ne ko kontaan yëpp a sedd Ken du serigne Touba mané ko lepp serigne Touba ken du serigne Touba dañuy ñaan rek ñu fekke ko ay déwén yu bari may ñu gudd fan ak wër sutura ak mujj bu rafet ñi ko ñëpp ko déwén ñepp baña ken baña bañ ci barke borom Touba. sante yalla rek ak yoonte bi sante Serigne Touba wax deug ne la magal nañ ci jamm ñu ngi sante Serigne Touba bu baax bu wér a wér bi neexna wax dëgg yàlla ah, sant daal lañ def daal ñuy sant si bi di ko gërëm rek saa su nekk ndax xam naa màggal bi moom dal day day day gën di yokku rek kanam la jëm rek waaye du mosu dellu ginaar bi naa yow din ajuma ma fi fekk waaw wax dëgg man yàgg fi màggal si ajuma fekk ma fi ma jullee fi kon nag may gën a sant yàlla rek di ñaan suñu borom mu at bii ñëw ñu fekkee ko te tal ko mun ko masalu alayhi salaam والعسى والسفر